xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee Samba Gelaajo Jéegi ciy sàmba Gelaajo Jéegi Samba Gelaajo Jéegi mi ngi judd ci xarnu fukk ak juróom-ñaar bi muy jeex ma nga juddoo fale ca joowal wor ga ci maatamu tey gii ana Samba Gilaajo Jéegi kuy baayam xanaa Gilaajo Jéegi mi nga xam ne moo jiite woon den yanke yi moom mi nga xam ne moo doon satigi bi nga xam ne moo yilifoon Fuuta Tooro ci diggante 1710 ak 1718 Samba Gilaajo Jéegi li ñu jàpp ci moom mooy bi muy nekk ndaw tout tànk jàppante bi amoon ci digganteem ak baayam bu ndaw di buubu Moussa nga xam ne moo doonoon baayam ndax Sàmba dafa mënul woon a nangu ginnaaw bi baayam génnee àdduna buubu Moussa wuutu ko mu jël cër yi seddale ko ñëpp moom Sàmba seddu ko dara ci cër yi Sàmba it seetlu ne satig yi nga xam ne moo jiite Fuuta am na mbañeel gum ko mbañeel am it wàññi gu koy wàññi Sàmba de moom du nangu loolu bu ko nangoo du gor looloo tax sàmba daal gàddaay dem yoonam bi Samba gàddaayee ma nga dem ca naari yooyu ñu tuddee naari na ca Labudu diggante Bogge ak podoor Samba nag fa la toog yónni ay nitam ca naar yooyu ñu fekk buubu Moussa fa mu nekk ca ngàngu rey ko ama gi fuuta nag ne loolu rafetut ma ngi Fuuta daal di daje ñoom ñi nga xam ne ñoo daan daje mbooloo mi fal daal di wote bi ne wote nag ne sàmba Gelaajo Jéegi moom mi yónnee ñu rey buuru Fuuta moom bokkut ci ñi war a toog ci jal bi noona nag konko buubu Moussa moom mi doon doomu buubu Moussa moom la ñu teg ca jal ba Samba ne du ko dégg dana wuti ngànnaay yi ba jotaat nguur gi nga xam ne bàyyi ma ko yoroon ginnaaw nag bi mu jéemee ay yooni yoon Samba mi ngi jotaat ci nguur gi toog ci jal bi 1724 waaye Samba amul jàmm nguur gi yëngu lool ndax boobu Fuuta meen mu ne yaa ngi xeex ci sa biir waaye li gënoon a doy waar mooy yëngu boobu Fuuta yëngu dafa amoon ñu ne ci bitti dugaloon ci seen loxo muy tunki ñi sant tunkaa ca Gajaga ak naar yi ak tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo yor kërug njaay googu ñu tuddee compagnie des Indes lu doy waar ñooña kenn buggu ci Fuuta am jàmm ku ne yaa ngi xam fexe ba buur bi nga xam ne àndut ak yow yow buur boobu du toog 1730 la Samba ñàkkaat nguur gi waaye 1731 at ma ca topp mu jëlaat nguur gi ndax Samba du bàyyi waaye Samba lu gën a doy waar mooy réew mi mu yor di Fuuta naar yi jógee Maroc di orman yi ñoom danoo def fu nu toll di dal ci kaw Fuuta di nangu la nga xam ne Fuuta moom la moom ànd ak noonu Samba yi ngir dal ci kawam waaye kenn du fàtte diggante sàmba Galaja Jéegi ak konko bu Moussa seen xeex yu metti ay ati at ñuy xeex ku xeex am ndam toog ku ñàkk ndam génn ñu koy awantoo di ko ay ayloo waaye li nga xam ne nag la kenn dul fàtte mooy keroog ba ñu dajee ca Bilbas yi foofu nga xam ne jàmbaar yi fàq tëdd ya ñu ci bëri seen bakkan fa la ana jàmbaar yi sàmba ya keroog ndam lin am ni mu waaye ndam la ni mu noonu la xeex ba méttee terewul nag ginnaaw ndam loola sàmba wéy di dal ci kaw képp koo xam ne noonu fuuta nga lu man ñaar fukki at kenn du def kenn du dindi te sàmba turam newu ci sàmba addunaam bépp dañal ak xeex lu man ñaar fukki at moo tax bi mu demee ba 1742 mu wopp dooleem wàññiku dafa génn Fuuta dem Bundu Sénégal oriental toog foofa waaye nanu jàpp ne Samba Gillaaje Jéegi ñeent yoon doon na ko satigi diggante 1724 ak 1742 boo dajalee li mu yor nguur gi yépp toll na ci juróom-ñetti at bu doon tey ñu ne ñaari mandat yi ñeenti at la waaye sàmba ana lu tax kenn du ko fàtte Gilaaji Jéegi mu tedd mi Gilaaji Jéegi mu ñeme mi Samba ana lu tax kenn du ko fàtte ba tey ñu koy waxtaanee mooy sàmba moo fëgg buntu àdduna ne kenn dootuma fàtte rëdd ay jëfam bind yëkkati deru fuuta ba kenn du ko fàtte Samba Galaaji Jéegi kenn la kenn la ci fitam kenn la ci njàmmaaram kenn la ci xarañam kenn la ci dëggoom Samba Galaaji Jéegi ana lu tax mu siiw ba kenn du ko fàtte xanaa fasam wa ca la bokk kay façon num tuddoon ummu latooma xanaa fetalam nga ca la bokk kay fetal ga num tuddoon ñu ne la fetal googu nga xam ne dafa mel na fetal fetal gu am xam-xamu boppam buubu lowaake la tuddoon waaye ku ne sàmba ne géwal ba gawloom ba séewi malal ana séewi malal tey képp kuy gawlo moom ngay ne mooy sa maam kuy maabo it mën nga ne mooy sa maam séewi malal boo ko tuddee tudd sàmba boo tuddee sàmba tudd fas wa ummu latoma boo tuddee sàmba tudd fetal ga buubu lawooke kooku mooy sàmba Gelaajo Jéegi Samba o dogata Gelaajo Jéegi lan lañ jàpp ci moom mooy ne Samba Gelaajo Jéegi ngor ak gore moom la yëkkati aj leen ba def leen ñuy diineem Samba Gelaajo Jéegi rafetoon ci jëfin rafetoon ci colin rafetoon ci doxalin ba ay loxoom setoon ba nekk loxoy gor Samba Gelaajo Jéegi bu daan xeexi day xool fa mbubb gën a rafetee mu sol ko xool fa fas wi gën a jekkee mu defar ko xool fa ngànnaay gën a rafetee mu wékkoo ko ndax nee na kuy dem xare ji dangaa war a mel ne kuy wuy ji cim po ndax dee moom ragalu ko woon sàmba gilaaje jéegi boo jàppee lii ñuy wax gumbala gumbalaa moomu nga xam ne mooy bàkk wi ni bàkk ñi am fit boo nekkee gone gu ndaw la lay wax luy dee ba dootoo ko ragal moo tax Samba bi muy gone la daan dégg ñu naan ko doomi ceddo bu yégee ci fasam ba kër paku jël fetalam daal di koy wékkoo mën naa xam ne saa su ne dënnam bal mën na caa dal mu ne dal tan yi war koo lekk loolu la Samba judd di ko dégg loolu la màgg di ko dégg loolu lay xeex di ko dégg loolu la wàcc liggéey di ko dégg. dëgg-dëgg góor dëgg fit dëgg jàmbaar dëgg ju mel ne Samba ragalul dee gàcce rek lay ragal boo ne wuri gàcce loolu la ko xelam di wax naan ko naqar moo gën gàcce dee ci xare moo gën daw ci sa kanamu noonu. dee ci toolu xare ñu jam la ba kenn amul fum teg loxoom moo gën mukk di dee ci kawub lal say jabar wër la ak say doom ak màggati kër ga Samba Jéegi nee na góor dëgg buy dee na dee ni góor di dee ndax nettali ba rafet Samba Jéegi nee na dafa bëgg dégg ndënd yi buy xeex ñuy jiit waaye nee na bëggut a dégg waa këram di jooy buy dee Samba Galaaja Jéegi nee na njàmbaaru góor dañ koy natt ci nim yëwanee ak nim tabe nim nangoo génnee alalam di ko jox askan wi këram nim nangoo dimbale ñeneen Samba Galaaja Jéegi nee na nee na góor dëgg góor dëgg ku aw turam war a des dëgg du jël mukk lim am di ko denc da koy nangoo summi kay di ko jox ñu ko soxla Samba Galaaje jéegi noom nee na géwal teral yoo ko nooy teralee géwal mun a teral ko noo xam ne doo ko teralee kenn waaye géwal ku ko lebal ker mu fay la guddi ana lu géwal yi defal Samba Galaaje jéegi xanaa way ko woo xam ne way yoo xam ne wayuñu ko kenn way ko way woo xam ne kenn dootu ko fàtte Samba Galaaje jéegi déglul jigéen ñi way yeelaa luñ ko wayal déglu liñ ko waxal ne ko keroog bi fetali ñu duy leen ba mu fees keroog bi nga xamee ne fasu naaru góor yi rangale nañ leen samba gelaajo jéegi yéeg ki fas wi di ummu latoma jiite ñii di denyanke yi keroog bisu xeexu bilbasi ca biir xolu fuuta xolu fuuta yëngatu na keroog bi jàmbaar yi dajee keroog konko buubu Moussa keroog la ngàngu naayam jallu juutu samba daa di am ndam ci kawam loolu lañ koy wayal ci biir yeelaa déglul ma jigéen ñi déglu ma jigéen ñi fuuta dëpp nañu leket yi xool leen ñi ngi yor koog yi ana lu ñuy way sàmb gilaaju jéegi ana nun koy wayee nee nañ gaynde la ci biiri xar sàmba kon kenn dula la fàtte gilaaju jéegi sàmba kenn du la fàtte ndax yow la géer ñu xool ba ne yow a nga jiite leen géwél yi xool ba way la ne la alaa gay naa ko ndax ñay sàmba kenn du ko sàmm sàmba dogota sàmba dawut ñiwa alaa gay naa ko sàmba yaay ñay wi te ñay du amub sàmm xam sa démb xam sa tey kii mooy sàmba gilaajo jéegi xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation massan Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Institut